woote bi ñu woote tey mooy lu rëy mooy xew si ci réew mi te loolu di xew si ci réew mi nekk loo xamante ne lu ñëpp doon ñaan la président Senghor ba ci président Wade ku ci nekk jéem na ko ku ci nekk révéloo na nit ñi mais le président Macky Sall ba mu jëlee réew mi daf ci joxe ay instruction ak xereñ gu tax tey ñu war a dem ci juróom-ñaari fan ci weeru avril bi bu ñetti waxtu jotee ci Pikine noor pour mu teg xeer bu njëkk li nga xamante ne moom mooy liggéeyu arène nationale bi dañ ko tuddee nag arène nationale mais ñëpp xam nañ ne du bëri rek lañ fa war def dinañ fa def yeneen sport de combat li ñuy def rek mooy bu discipline waree ñëw ñu changer plateforme bi pour permettre discipline boobu mu mën fa organiser li mu fay organiser ñëpp nag xam nañ ne arène nationale bi andi woon na fi coow lu bare bari ñu ciy sant bu baax la maire de Pikine Nord aussi parce que ba ñu dajee waxtaan comprendre nañ en tant que maire parce que moom maire la waaye ñun itam maire lañ balaa ñu nekk ministre waxtaan nañ ba juboo ba yàlla def ci fukki fan ak juróom ci weeru mars bi ñu jóge woo na waa Pikine noor yëpp waxtaan ak ñoom ak acteurs yi pour ñu jàngat nangu ci li ñuy tuddee létude étude d' impact environnemental et sociale te étude boobu mooy gàttandu jafe-jafe yi war a mun a am ci bu ñu defee arène nationale boobu foofu déggoo nañ ci ba nit ñi d' accord ci li ci des rek mooy démarrer liggéey bi parce que entreprise bi ko war a liggéey mu ngi fi ñaari weer yi ci gannaaw la fi nekk dafa mujj sax di jàppale entreprise bi fi nekk ci réew mi waroon a def terrassement bi pour que mu gaaw pour mu mun a démarrer liggéey bi war a nekk ci ñaar fukki weer ak juróom-ñett loolu nag su paree dina dimbale bu baax li nga xamante ne moom mooy làmb ji dina dimbale it sport bi parce que dafay nekk jumtukaay boo xamante ne fédération yi amul siège yëpp war nañ fa mën a nekk mais dina am ay salle de musculation xam ngeen ne mbër yu bëri dañuy jóge fii dem fu ne pour defari seen yaram dina am ay salle de conférence am foo xamante ne it ku fa bëgg a dem am fa ay réunion yoo war a def nga war a ko mën a mën def foofu te mu nekk jumtukaay bu ëpp doole dem ba Diop parce que la fa war dugg ci doomu adama xejul ba jóg ñëpp ñuy def sport la ñuy invité pour que président de la république daje ak les sportifs du Sénégal ci pose première pierre boobu su ko defee mu nekk jumtukaay boo xamante ne ci Afrique bu ñu ko waree duñu ko fi gis mu war nag coûter lu bare bari parce que non seulement bëre dina fi am ak yeneen jumtukaay yi nga xamante Sénégal ñëpp xam nañ ne président de la République mu ngi xeex pour infrastructure am fi dinañ ci def lu romb fanweeri milliards su ko defee dinañu mën a dimbale discipline yu bare bari ñu am fu ñu organiser seeni compétition